bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa duniya du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam aoudubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim laa hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokk yi seetaan aaxiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci aaxiru zaman di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm ak wér ak sutura yàlla ñu ko yàlla boole defal di sant mbokk yi déglu yëpp fu ñu mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen ñaanal jàmm ak wér ak sutura aaxiru zaman bi weesu ñu ngi doon waxtaan lu jëm ci mbirum euh, daara yi nga xam ne nii jamono yii nii cible la ci gouvernement du Sénégal waxoon nañ ko dañ koy waxaat wëy di ko waxaat fitna ji daara ji nekkee ni tey gouvernement du Sénégal moo ko ko bëgg a teg te yàgg ko ko teg ba ñu amagul indépendance ba fii mu toll nii bàyyiwunu daara di ko fitnaal di ko bunduxataal ñu yaakaaroon ne bu fi tubaab bi jugee euh, sénégalais yi ñëw jiite réew mi daara dana siggi ndax ci nun la bokk moom daara ci sunu pas-pas la bokk waaye dafa mel ne tubaab ba dafa dem ñi leen wuutu ñëw gën a yées tubaab ba ci ni nga xamee ne noonu la ñuy traité daara ba tax na loolu la ñoon waxtaanee ci aaxiru samaan bi weesu tey ci biir yi ñuy waxtaane incha allahu taala dana ci duggaat ndax yéen ñëpp xam ngeen ne le treize bii ñu dégmal fële ca unité treize incha allahu taala euh, danañ fa def conférence de presse ca jumaa sëriñ Modou Gueye ja bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi incha allahu taala danañ def ay dog dog yi man naa ca joxe rek benn am na yeneen yu ci dolleeku nga xam ne même ko am ngante ñëwoo ca conférence de presse ba mën nga ko def ngir yéene ko ennemi daara yi ku dul nag doo bokk ci dog mais bu ñu sëlmalee tàkkusaan incha allahu taala ñeen fukki tabar ya daag benn balaa ngaa jug ci sa jotaay ñu ngi sàkku nga def ko moo xam teew nga fa wala teewoo yéene ko képp kuy ennemi daara yàlla teg la luy tax doo tootala ci daara ndax nag daara ci noonu la bokk bés bu ñu fi jëlee daara mooy jëlee nañ fi lislaam ndax daara moo tax lislaam taxaw fii ci Sénégal ba tax na loolu noonu la incha allahu taala danañ ko amal euh, dimanche jii nu dëgmal le 13 unité 13 incha allahu taala le 13 unité 13. bu ñu julee tàkkusaan ba yi def ñaan yooyu noonu le jàng alquranul karim pare nag euh, jàng li nga xam ne moom lañ bëgg a wax ak àdduna bépp ngeen ñu déglu ko bu ci yàlla àndee tey nag mbokk yi incha allahu taala ci actualité la ñuy dikkaat actualité bi danañ ko tënk ci ñetti tomb tomb bu ci njëkk bi danañ waxtaanee lu jëm ci wàllu daara yi incha allahu taala danañ ci dikk euh, ndax duñ woy di ci dikk euh, liñ ci indi mooy lële nga xam ne moo xew fële ca euh, Kaolack ci daara Serigne Saïd Darame nga xam ne nii Serigne daara la boo xam ne tabax na ba dëkkee gouvernement bi am dogal yu mu war a jël nee na ngir war a yëkkati foofu mu dëkkee daara jaag jumaa jaag armel yi nga xam ne am na fa dañ leen tegal vidéo boobu incha allah ngeen déglu ko ñaaral bi jamono yi ñu ngi ci jamonoy nawet ren mu am taw bu fi wàcc euh, inondation yi sonal population bi gouvernement du Sénégal waxoon ne def na ci sept cent cinquante milliards ba ki ko jiita ni tey ci jamono ya muy campagne wane woon na ne réglé na problème mu euh, wal mi ci dëkk bi journaliste yi ñooy wax mbënd mi mais mbënd moom amu fi am wal moo fi am dafa taw taw bu waame bu wàcc bu wàcc mu jur am euh, wal mais pas mbënn loolu incha allahu taala dana dugg ci biir actualité yi ñuy waxtaan waxtaane beneen bi mooy Akon City sénégalais yu baree bari ñu ngi dégg ni Akon di rapport boobu nekk fële ca Amérique te bokk Sénégal ca euh, deret ñëw na am benn dëkk bu mu fi bëgg amal dëkk boo xam ne ay junniy milliards la ci fas yéene def. dëkk ba lan la lu mu wundu lu ci nekk lu mu làmboo ba tax mu yey ñu teel cee waxtaan bañ a nekk rek di topp ñoom ci na caam ak yëre caam ñiirim caam ñu naan dañoo soxo rek ku war a investir rek ki na caam ak yërim caam moom seen bopp yi ndox nekku ci moo tax ñooñu jaruñoo déglu sax ñuy wax mais ñi nga xam ne ñi nga xam yi nekk ci ginnaaw mbir yi faaw ñu leen di déglu ñu leeralal nu lii nga xam ne moom la ñu bëgg amal lan moo ci nekk lan la jural Sénégal fii ak 100 ans ci kanam pare ñuy xool tey li ñuy naxee naan ay waaw développement ak euh, dana indil emploi yooyu ay caaxaan la monument de la renaissance bii nii ci euh, Ndakaaru biñ koy bëgg a taxawal Sénégal yu bari dañ leen a naxee woon waaw day indi euh, koom-koom ci réew mi économique touristes yi dañ fi mën a ñëw mi ngi nii tey wakaam jëm nekk ñu ngay dund seen i coono ba tey monument ba dara la leen dindilu ci seen i kon bu nu kenn naxee di bëgg a indi dara naan développement Sénégal yooyu moom ñoom ñi dem caam rek léegi ñoom lañ koy naxee ngi def waxtaan yooyu yi ni mel tey ñu ngi fi dalal koo xam ne du yoon mu njëkk ñu koy dalal fii ci aaxiru zaman ngir yàlla ak xam-xamam ak xelam bu rafet macha allahu taala ak man koo jottali nit ñi man koo dégg tey moom la ñu dalal muy imam Babacar Sylla imam ñu bàyyi la nga nuyoog ñu seetaan aaxiru zaman alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah eh, Oustaz Makhtar ñi ngi lay nuyu di nuyu waa axiru zaman yëpp di nuyu waa Oustaz point net yëpp Oustaz TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mhm. di amaat mbégte pour ñëw bokkaateeg yéen axiru zaman ndax ci kër gi lañu bokk mhm. ñu ngi ñaan yàlla mu may nu nii nu commencé ci bismillahi rahmaani rahim yàlla may nu nu yeggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin parce que mbooleem point yi nga xam ne oustaz tënk na ko fii benn bu ci ne actualité la te ñu ngi koy dund te dafay baax nag ñun ñi nga xam ne dañuy nàmpee ci barab yi nga xam ne ci la ñuy dundalee suñu pas-pas euh, ñu fiy jàngat actualité bi xam fan la ñuy teg sunu tànk Serigne Abdou moo daan wax ni ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd mm-hmm. te bokk na ci suñu gàggantikukaay nag axiru zaman kon Oustaz ñu ngi delloo nuyoo ak ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñett point lañ koy def bu njëkk bi dañ koy dooree ci inondation yi imam Babacar Sylla ñaareel bi ñu ñëw ci Akon City mujjee ci wàllu daara yi insha allahu taala jamono yi jamonoy nawet la ren taw bu bari wàcc si wàcc ci réew mi dont dégg nañ njiitu réew mi ci bërki démb euh, conférence de presse bi nga xam ne amal na ko mu nekkat kat dogalu yàlla bu wàcc la ak sénégalais yi seen ñàkk taxawaay euh, wane ne taw bu waroon taw ci ñetti weer moo taw ci benn fan kon faaw mu mel nii waaye nag am lu jiitu woon loo xam ne moom moo euh, ko yëkkati woon wane woon ne saafara na lu mel nii ba dootuñ ko dundati léegi nan lañu ñu mën a jàngatee ñu ne jël nañu sept cent cinquante milliards milliards waxuñ junni waxuñ million sama mbokk faana faana yi maanaam juróom-ñaar téeméeri juróom-ñaar téeméeri milliards mm-hmm. ak juróom fukki milliards milliards milliards mm-hmm. nga xam ne nee nañu xaw ma ko dundoon ñaata at euh, cent ans bés bu ne nga dépendre say fukki junni cent ans ba muy téeméeri at téeméeri at mën nga ko bis bu nekk nga joxe fukki junni dépense mm-hmm. loolu mooy benn milliard benn ci juróom ñaat téeméeri yi ñu ne def nañ ko pour régler problème mu Euh, ndox mi nga xam ne moo sonal population bi. Mhm. nan nga nuy jàngatale loolu imam Babacar Sylla euh, jërëjëf Oustaz Makhtar xanaa am ci jaaxle ndax dafa mel ni ñun dañoo nekk société boo xam ne dañoo taamu lu baax rek mu yanu ne def nañu. Mhm. xam nga bi mu baaxee président ne woon na regle naa ko su bonee ñu ba max yàlla loolu dañu koy jëfandikoo ba ci wàllum njaaloo sax mhm. bu xale yi di foo dañuy def seen pexe ko bu ñu demee ba def seeni safaan ba ëmb am ci ñu ne yàllaa ko dogal bu catastrophe amee dee yàllaa ko dogal lu baax daal ñun la lu bon yàlla la loolu amul li am solo mooy ñépp xam nañ ne yàlla mooy taw waaye sunu borom bi mu àndee ci àddina daf ñu responsabiliser mooy alam bi ñu nekk alamul asbaab la dañu fi nekk di sabablu yàlla jox nu am xel jox nu xam-xam jox nu ay moyens bi muy taw ñun ñëpp dañoo fàttu suñuy kër lu tax kenn ci ñun tooyul parce que dañoo defar ab néeg waajal suñu bopp pour buy taw du ñu tooy loolu bu ñu toogoon di xaar yàlla ne du ñu tooy ñun ñëppay tooy wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha yàlla nee na moo garanti suñuy wërsëg bépp aju dukkat yàlla dina la jox sa wërsëg terewul ku ci xëy da ngay wuti dépense parce que xam nga ne lay sa responsabilité mooy nga jóg doxi ko yàlla dogal na ko mais waxu la fu ko def kon inondation yi ndoxum yàlla la waaye taxawaay bi ñu waroon a am ñun moom lañu amul taxawaay boobu mooy lan mooy dañoo jël dépense bu doy sëkk bu ëppul parce que wax nga ko léegi sept cent cinquante milliards gis naa beneen chiffre bu wax na sax sept cent soixante six milliards juróom-ñaar téeméeri milliards ak juróom fukki milliards gën a néew mhm. gën a ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukki milliards ak juróom benn oustaz loolu fukki région ak ñeent yi nekk Sénégal fukki gox yi fi nekk ak ñeent boo leen ko séddale woon gox bu ci nekk gën a néew dana am juróom benn fukki milliards région Louga bee ma xam juróom fukki milliards xaju fa pour inondation mhm. région Kaolack bii ma xam juróom fukki milliards xaju fa pour inondation région Thiès. Mhm. pour inondation juróom fukki milliards xaju fa. ci exemple raison yi bu ñu ko séddale woon ci somme boobu noonu la. région bu ñu utilisé woon exemple. mais non 40 milliards la defaree. Thiès Thiès moo doon sant Thiès. mu ami tali ami lam naat dëkk ba xanaa léegi la xawal lii rek. mais dëkk ba na mu meloon ni jamono dañ doon wax ne moo fi dàq. te réglé woon na lu bari. ci problème mu ndox ma. Cees ba léegi xëy na mi ngi am ndox. waaye lu bari réglé wu na. mais lu bari réglé wu na. ci 40 milliards te bii bu ñu ko séddale woon dana mat 60 milliards. 700 et quelques. mu te yeggagul woon. yeggagul woon te yi jeexagul woon. Mhm. yeggagul woon. Mhm. parce que ñoom sax dañ ne def ko détourné. Mhm. c'est-à-dire kon lépp demu ci mu am dëkk bu mel noonu. kon région yi bu ñu leen joxoon ku nekk rek. 50 milliards minimum ñoom ñëpp réglé nañ problème inondation moo tax ñiy laajte fan la ñu def loolu seen normal ñu laajte ko fan la xaalis boobu dem mhm. ba dégg naa sax président nee na nañ ko jox rapport détail pour mu xool exactement lu xew ba lii am parce que moom nee na woon na ko kon loolu lim ñuy woon mooy ba léegi ñoom dañoo am responsabilité ci mbir mhm. d'accord ma nag mu xëppaat ko askan wi askan wi defuñ dara askan wi xam luñ mën mhm. nga dagg leen ay taxes yi ñu jox leen nga laaj leen impôt ñu jox la ko yow yaay wuti ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñooy fexe ba ndox mi dootu leen lool mais askan bi mënul defar loolu. mais dañoo xam ne askan bi dañuy ñëw jël ay mbalit di ko sotti ci li ñu defar tamit. waaw xam nga askan wi bi mu ñëwee di dëkk dafay ñëw tàggu état gox boo dem di jënd di nga dem ca mairie ba mairie ba xoolal la ba xam ni fii normal na mu defal la délibération yebal la impôt et domaine ñu saytu barab bi ba xam ne yaa ko war a yore ñu jox la ko même bu doon askan wi dañu dëkk fu jaaduwul état bi muy complice ak ñoom. kon ba léegi mënuñu ko xëppaan ñoom parce que képp kuy dëkk di nga am ak état ba mu xoolal la ba jox la këyit nga dëkk kon ni nga xam ne dañoo yore këyit dëkk ci ndox nañu wax ne état bi leen jox foofu ñoom ñoo am problème. mais nit ki moom sañ naa ñëw xool suuf bu libre mun a damaa bëgg dëkk bu baaxul naka état wax nii fii baaxul mu jóg dem feneen mais dañu lay jox këyit jaay la terrain bi ay millions. nga tabax fa ay millions woon dëkk fii mu mel ni yow da nga ñëw rek fàkk dëkk fàkk dëkk amatul bu njëkk amoon na mais léegi fàkk dëkk amatul kon nii ñu ñu ko bëgg a xëppee mooy dañuy daw seen responsabilité mhm. mooy état bi na xam ne moom bi ñu ko falee dañ leen a jox ay gox mooy mairie mairie ba xam nga lan moo fay rôlam na xool canalisation bi est que tali bi am na suuf mairie yi baleetuñ tali yi ñoom dañoo war a jël ay balekat di xool mbedd mi est-ce que am na saleté est-ce que am na mbalit est-ce que rugal yi daj nañ butéel yi mais bu ñu xasee toog seen bureau du ñu fa génn ba weer wi de ñu dem toucher seen salaire delluwaat mais ça c'est facile dafa yomb askan wi moom kenn du wax ne du ñu yàq dañuy yàq mais yow mi nu dénk yaay saytu fii ñëppay saytu seen alal Oustaz Makhtar sa oto bii boo demee kër ga da ngay fexe utal ko garage dugal ko doo ci yem nga bâché ko boo fa xamee gardien sax boo ko gardé ci biti da nga koy fay mu parce que boo ko deful askan wi jël ko kon nag bu defaree lu toll ni tuyau wala canal war na jël ay matukaay yu tool ni sàmm kanaan ba ba kenn du buddi kubéer ba mhm. mbaa ku ko buddi ñu topp la ba jot la parce que Macky Sall kat président de la République fa la mu dëkk mhm. wun ay tinalam mhm. dajjiwun ay rigolam parce que am na ñu fa taxaw ñoo xam ne boo fa laalee weñ ñu yëg la est-ce que du problème bi ñoom fi ñu dëkk ñàkk gim ñàkkataa moo tax oh. réglé wuñu xamuñu feneen fii taa ni métti effectivement ndax tey boo xoolee dañuy wax ne ku gañe banlieue bi gañe nga Ndakaaru waaw léegi ñoom bu ñuy campagne danañ ñëw ci biir banlieue bi. Ah, bu ñu fiy dellusiwaat mooy bu ñuy ñëw di xuus ci. ngir wan leen ne kat ñu ngi ñëw di bokk ak yéen seen métier. waaye seen euh, logement fonction yi sax nekkul ci banlieue. fa ñu nekk defar nañu assainissement yi ba mu baax. nañu defaree biir ndakaaru biir ndakaaru palais ba ak assemblée ba du taal. Mm-hmm. defe naa programme bi wum noonu moom buñ ko wëralee woon ndakaaru tamit mu dajal ko. duñ ko def parce que dañ ñu wul baat bu metti la nag. waaye wallahi ñi ñuy jiite nawloowuñ ñu dafa mel ni ñun daf ñoo jomb pour ñu dëkk dëkk bu luxe daf ñu jomb pour ñu ñëw jël ay milliards def assainissement bu baax ci banlieue bi day mel ni bu ñu ko defee ñun dañuy xaw a avancé tuuti dañuy nekk ay nit yu noble loolu daa mel ni dañu bëgg di xiifal di ñu marloo di ñu sonnloo pour ñu mën a daw di topp seen ginnaaw loolu dafa war a jeex. nit ñi nag mën nañ ko régler de. Hmm. nit ñee war a am fayda. Hmm. nit ñi tamit dañu amul fayda wax dëgg yàlla. da gis koo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi waaye leer na ma ci leeru yàlla. wallaay bu président ñëwoon ci mbedd ma taxaw ñoom ñëpp ay fàtte seen coono yi daw taxaw. mun leen joxee 5000 francs pare nañ ci. mais nit day passé loolu. mooy ñu envoyé nit ñi xaalis taxul mbënd mi jóge fi. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gis nga bu ñu jëlul ay matukaay ci mbënd mi joxe xaalis nii rek lu tax mbënn mi jeex fi dinañ ko waxaat. heure bu yàlla tawaatee ndox mu bare nii lay demee waat. Mm-hmm. palaasu ndox amul ci àddina. fépp la ndox di dal nañu fexee ñu régler problème bii Sénégal yi di dund nit ku tëmb ci biir ndox ndox mu ñuul kuk ndox mu xonq cur ak ndox mu verte lu nekk jaxasoo ci ndox mi ay nit nekk ca nga di leen xool naan waaw baax na maa ngi ci yéen maa ngi ci yéen man loolu dafa ma xaw a jaaxal mu leer la ne dig nañu leen am na ñoo xam ne bañ déggee ni dig nañ leen ñoom ci la seen mer yëpp rees te xamuñ lañ leen dig est-ce que dina ñëw tey suba ginnaaw suba li mooy du tey du suba mhm. waaw ñetti fan yi ñuy def ci ndox mi lan moo leen ca mën a fekk yan feebara leen fa mën a dal lu tax banlieue toujours mooy inondé lu tax Dakar du inondé 2012 mhm. bi inondation bi demee ba laal buntu Ndakaaru dañu def téléthon mhm. fexe ba génne leen ci problème bi yëpp mais banlieue ba léegi kenn defalu leen téléthon mu mel ni dafa am ñaari Sénégal mhm. lépp lu dal Ndakaaru daal ñëpp ci war a taxaw mhm. mais bu dalee ci banlieue bi kenn du ci taxaw ba léegi kenn deful téléthon doy na waar mu mel ne jàpp naa ne foofu sax benn njaxas am na ci mhm. mooy gouvernement du Sénégal mënu la wax ne génnee na sept cent cinquante milliards wala sept cent soixante-six comme ci yenn chiffres pour régler problème ndox mi fi muy léegi bi demee ba mbir yi ñëw nii ne këtt ñu ne président woote xaalis bi lii desoon na ci plan bi yegg yeggagul dañ koy continuer mais ñoo dañuy génne waat 10 milliards pour dugal ko ci 10 milliards yi fan la jógee ndax 10 milliards yi ci 750 milliards yi la génn wala yeneen 10 milliards la yu bees yu dollee ko ci 750 milliards yeneen la waaye oustaz 10 milliards yële koy rees na yeneen la ñuy génne loolu foog mu xam ko de 10 milliards yële moom ku yebu wax leneen 700 milliards yi ku yebu waxal ci leneen léegi 10 milliards yi fu ñu koy jëlee kay foofu la problème bi nekk mais léegi est-ce que kon Sénégalais yi war ñoo taxaw ne bu leen génnee ci dara bàyyi leen ñu rek ñu dee ci ndax man nag moom ndax bu fekkee ne bu génnee 750 yi bu paree duñ la wax fu ñu ko def suñ génnee waatee 10 milliards yii ñi ci def seen yaakaar doomu laa yaram donte nag sénégalais dafa doylu ñun moom xel wu doylu mooy li amoon rek ci <laughs> jamono bi ñu ñu ne covid bi dëkk na mille milliards yi jeex na ana ma fu mu dugg kun ci envoyé vingt ne ci biir te du problème mu lekk ak naan la am. Mhm. mais problème mu ndox la ñu am. Mhm. du envoyé borom kër gi cent mille franc moo koy réglé déedéet. mais këram gii tëmb ci ndox mi. Mhm. la koy réglé du cent mille franc. exemple ñu ne ngeen jënd ci matelas. waaw ci lañ leen di yónnee. léegi bu ñu la yónnee ngay jënd matelas sa kër ndox mi di jugu fa. foofu koy teg ci kaw ndox mi loolu mooy wax ji <laughs> sa bopp day feebar ñiy faj say tànk. waaw ku am feebaru bopp di faj ay tànk doo wér abadan ñun loolu mooy suñu problème mooy dañu am problème mu ndox mm-hmm. di régler problème mu lekk mm-hmm. feebar bi bi mu ñëwee gis nga dañu am problème mu feebar di faj problème mu xiif mm-hmm. parce que yaa ngi joxe ceeb ak dëwlin ak leneen te nit ñi dañoo feebar non c'est catastrophique en buñ ko jiiñ yàlla daal moom <laughs> voilà yàlla moom keccat buñ ko jiiñ yàlla ka jëm ma ca xam naa daal euh, ci li ma ci tënk ci li ma Mbaawakar wax am na solo lool lu mat a bàyyi xel lu mat a jàngat Sénégal fii mu toll nii wax dëgg fa yàlla taxawaayu ñi nu jiite dafa des lool. ku ko wax nag ak ku ko waxul moo fi am. Mm-hmm. léegi nag ñenn ñi seen loolu yóbbee na leen boo gisee loo xam ne nii dafa ñuul kooku nga ne ñuul na ñoo danga waroon wax ne weex na soo ne ñuul nga rek dafa am foofar. waaye bu fekkee wax ne ñuul na moom moo tax ngay am foofar nañ nangoo far foofu rek. Mm-hmm. alaa kulli xaalis nañ far ak dëgg. Mm-hmm. dëgg moom moom moo am solo. Euh, dëgg nag boo fareek moom. kii nekk fee keneen nekk fi moom nga yemale dëgg-dëgg doo la mën a doon te dëgg ji mooy li nga xam ne nii moom la imam Babacar Sy la wax euh, dama ci wax ak euh, sëñ Fata ñu ci waxtaan euh, keroog sax defe naa ñi nga ñi nga ñi nga woon ci jotaay bi ndakaaru exemple problème niñ mënoon a régler ndox mi ba defaraat ndakaaru ci beneen ci beneen xarkanam tey boo jëloon dalee ko fu mel ni Padoa am na ay tool yu fa nekk tool ya warutoon a nekk bërëbu dëkkekaay mhm. mais jaay nañu tool ya nit ñi dëkkee ko mhm. maanaam tàmbali nañ koo jaay laay wax te buñ bàyyee dafay avancé mhm. te da nga dem foofu nga xam ne nii ay tool la woon waxuma tool yi kese mais ay kàmb la boole ci la bërëb bu xóot la li ko jege ñi ngi ko tàmbalee jaay nit ñi di ko dëkkee di tabax ay immeuble nga xam ne loolu dafa nar a continuer te am nañ këyit te am nañuy këyit dëkk nañ tabax nañ seen i am nañ ndox ak courant. Mhm. gouvernement ñoo defal na leen li ñu bëgg. te xam ni barab bi mel. barab bi ni mel. Mhm. tey bërëb boobu immeuble yooyu yëpp. buñ bëggoon defar foofu la ñuy tàmbalee daaneel ko. def tool yooyu ci Padois mu nekk ay bassin. Mhm. comme bassin yu mel ni Abdoulaye Wade tàmbali woon ci nguuram. am na lu mu tàmbali woon a saafara ñu mel ne Medina Gounass. gis nañ li mu leen jural ci njëriñ. tey loolu dañ ko waroon def ay basin mu nekk bassin boo xam ne nii mën nañ ko def ay parti parti mais gis nga buñ dalee woon foofu ci Padois. ñëw dox ba dugg si technopole nga xam ne diggante tool yi ci Padoa ak technopole lépp day nekk bassin tali bi jógee ko Cambérène jëm kaas ba day nekk pont dootu nekk di tali bu jaar ci suuf mais day nekk pont boo xam ne ci biir ndox la jaar loolu yëpp nekk bassin ñëw ba technopole gis nga bu technopole bi mën na nekk première étape suñ ko defee danañ régler lu bari ci problème ndox su boobaa li ñuy wax ne def nañ ko ci ay canalisation pour ndox mi dem géej dootuñ soxlaati ndox moom ni dem géej ndox mu ci bari mën nay verser aussi. bassin boobu ci bassin boobu. ndax bassin yi jot a amagum ci banlieue bi. njëriñ li mu jur mooy ndox mi day ñëw di verser aussi foofu. su demee ba fees luy wane ne matagul. Mhm. mooy bassin yi ñu defal dafa tuuti. Ah, te yu ndaw la loolu laa bëggoon a wax. bassin day fees ñu ñëw manque ko wàññi ndox mi. Mhm. mais am na lu mu soulager population. mais gis nga bii buñ ko defaroon ñu def Cambérène ñu def euh, tool yooyu nekk foofu. fële mu ngoog def loolu noonu yëpp mu nekk ay bassin dana nekk ngandum basin boo xam ne nii waxuma la rek régler problème mu inondation mais napp jën tout ça mën nañ ko def ndax biir technopole am na ñoo xam ne ni tey seen dépense fa lay génnee ci ndox ma fay jot mhm. dem di nappi mhm. su boobaa gis nga statu mbër yi dañ koy éliminer fa daal lépp ñu def ko mu nekk bassin mhm. tali teeg bi nga xam ne moo jógee technopole ñëw di dugg si Pikine loolu tamit dañ koy defaat même lañ def Cambérène mu nekk benn yoon boo xam ne ni pont lay doon jaar ci biir ndox gis na bu nekkee première étape bi deuxième étape bi buy continuer hmm. dafay continuer ñëw côté cité baraak jël tool yi nekk foofu noonu la hmm. lépp bokk ci bassin bi mu continuer waat mooy taqaloo jeeg bassin yi nekk Gunaas hmm. dugg biir Wàqiraan ak bassin yeen fa def su boobaa day nekk benn trace boo xam ne digg Ndakaaru yëpp basin lay doon mu nekk noonu dinañ ko defar ba nga xam ne nii ay euh, defarin bu rafet lay doon ay technicien bu ñu leen ko santoon ñu defar léegi plan bi tegal ñu su boobaa Sénégal dootuñ waxati ay problème mu fee fees naa Grand Yoff ak yooyu yëpp problème bi day rek yow banlieue bi tamit fu ci bari problème bi day rek yow mais est-ce que loolu moo gën a nekk farata wala BRT moo gën a nekk farata wala TER bi moo gën a nekk farata ñu bëri xam nañ ne TER bi moo yóbbu TER population Dakar TER ñu bëri xam nañ ne TER bi moo yóbbu TER population ah, Dakar ndax banlieue bi bi teer bi ñëwee jàll defaluñ fenn foo xam ne moo war a évacuer ndox yi tey ñu bëri ndox moo fan doon jaar teer bi fatt na ah yóbbu na leen teer ah léegi bu fekkee ñu ngi def ay chantier yoo xam ne pour étranger yi koy defal ñu war a ne Sénégal ñu ngi liggéey mais defuñ ko pour population ah. defe naa problème dafa yokk mais du wàññeeku day yokk oustaz loolu mooy wér gis nga li nga calculer nii hmm. man maa la waatal ne ñoom xam nañ ko problème mu bëgg sa réew la ak problème mu njub moom lañ am ñoom mais xam nañ ko te am nañu technique see yu xam ndox xam suuf xam environnement xaalis bi mi ngi fi waaye njub gi koy def yërmande gi koy def loolu moo fi nekk parce que considéré gun ñu ba léegi ay nit ay esclave lan ñu def <laughs> oustaz wax naa barki démb ne imaginel tey ni ñu doon quarantaine nit ñi ci feebar bi hmm. lan moo tax ñu daan quarantaine nit dañu ne kër si Sylla feebar bi dal na ko mas naa dugg ci kër googu wala ci restaurant boobu jàll na dem na mbooleem ñu fa nekk dara dalu leen mais dañ leen yaakaar rek ne mën na leen a dal mhm. ñu yóbbu leen ci ay hôtel te hôtel yëpp dugal fa ay nit yu wër ci mais dañu yaakaar ne rek mën nañoo loru ci feebar rek mhm. ñu dugal leen waa léegi mhm. kooku yorul këram yor dépense am yor léppam ñu buddi leen yóbbu ci ay hôtel pour aar leen aaraale askan bi waa ñii ne ci biir ndox mi kan moo leen gën a yelloo ñu budd leen quarantaine leen ci hôtel yi te te lim boobu moo gën a néew bu ñu ramassé woon mbooleem ñi nekk ci ndox yëpp yóbbu leen ci hôtel yi ñu am yëpp dugal leen fa 15 jours rek ndox mi dina ñiis wala ñoom ñu ngaccal ko seen bopp loolu moo gën a oyof loolu bu ñu ko deful nag mooy ñoom ña ñu doon quarantaine dafa am leneen lu tax ñu leen di quarantaine mais du woon pour aar kenn <laughs> fii ñu toog yi def émission. Uh-huh. kër gii sama ginnaaw. Uh-huh. ndox mi da koo nangu. Uh-huh. ndox mi da koo nangu. Cheikh Fata da leen a jox daaraam ca kaw jàkka ja fa lañ dëkk. moom kenn dénku ko responsabilité ci réew mi. amul benn benn war-war bu ko war. dëkkal ci daaraam amul. yërmande jooju mu am. ba munul xool nit ku dëkk ci ndox mu jël ko at ko ci kaw. yërmande boobu ñi nu dénku réew mi ñoo ko war a ëpp. te ñu yor ministère bu yor ministère famille. te ñu yor ministère de la famille. famille yi di diig ci ndox mi. Mm. ñu toog di leen xool naa leen waaw dinañ leen may dinañ leen. Mm-hmm. ba benn doomu daara. boo xam ne njàngam ak activité am état defu ci dara. Mm-hmm. di buddi ay nit di leen yóbbu ci këram. Mm-hmm. pour tëj leen fa parce que xam ne ne yellul ñu dëkk ci ndox moom. ma ne loolu dafa ñaaw sax. loolu gàcce <laughs> doy na waar maa ngi koy bindaat ci sama page Facebook ni moom Babacar Sylla nee na. <laughs> maa ngi koy gis euh, bu balaa ñoo sénégalais yi ñu doon quarantaine ngir corona bi. nañu leen quarantaine ngir <laughs> inondation yi. Ah, mais lu mat a lu lu lu mat jàngat la. ndax nag euh, wax dëgg fa yàlla benn feebar ñëw na nga jël ay nit yóbbu leen ci ay hôtel. Euh, yu ma xam ne du ma du jarul ma leen di tudd. Mm-hmm. am na ci hôtel yoo xam ne benn sénégalais bu ne chaque jour cinquante mille francs. chaque jour chaque ci corona cinquante mille francs lañ lay fayal waaw léegi euh, loo xam ni sénégalais yi mos nañoo yàgg nañoo fanaan ci ndox nga xam ne moom li gën a gaaw ci joxe jàngoro mooy di fanaan ci ndox di ca yeewoo ah, ah, kenn mosu leen a yóbbu ci benn sagaru hôtel auberge sax duñu ñu fa yóbbu benn feebar boobu dañ ñaan rek am na ko feebar koo jege rek uh-huh. ñu jël a yóbbu la ci hôtel tëddal la fa quarante euh, quatorze jours nga nekk fay lekk ak ki naan di nelaw ak a yeew ah, léegi loolu noonu lay wax dëgg fa yàlla. dafa war a am na lu ne ci quarantaine na leneen lu ñuy quarantainal. Ah, dafay ñaaw lu bokkul la aar bi man tiis na sama. leneen ñaaw na ña euh, na xel de tey na ñii daal ku leen ban ñii ci ndox mi bu mm. ñu toog fa ba ndox mi jeex. Mm. wax dëgg man xaw ma sa quarantaine bi nga doon def nit ñi foo ko tey. wax dëgg fa yàlla ndox mu ñuul kub ndox mu vert. Mm. ndox mu xonq salte yëpp necc. nga leen fa ne leen dinaa leen yónnee te man leen a quarantaine ci hôtel. wax dëgg. nañ tijji hôtel yi quarantaine ci ñi ne ci ndox mi. man daal loolu laa <laughs> moo jaadule xam naa nañ ci dëkk ci troisième point bi même loolu chose laa waxoon keroog ci télé bi. Mm-hmm. ne la Ndeye Sali Diop doon mën a jàppi taali bi rek am na liggéey. waaw Ndeye Sali Diop laa wax yow mi Ndeye Sali Diop. ministère bi nga xam ne yaa yor wàllu famille moom li mu boole dafa bari yor ko. moom kenn waru ko woon a gën a fës. Mm-hmm. ci jamono yi ñuy dund nii ci taxawaayam. famille femme genre euh, protection des enfants. fa enfant yi ñu ngi ko ci biir ndox mi. Ah, am na enfant bu faatu ci biir ndox mi. juróom benn juróom benn nit faatu nañ ci. Ah, juróom benn wax naa ko ci benn télé kooku moom day xumba rek ñoo bokk plateau bi. Mhm. ne ma mais bu yóbboo parents yi euh, enfant yi xale yi la euh, seen papa nag. mu ne ko mais moo yor wàllu famille. waaw da ko yor waaw ah, famille waaw. mu ne mu tekki na non non non est xam nga ndax yóbbu na nenam déet. déet yóbbuwul leen. <laughs> non xam naa kooku day xumba rek xëy na dama bëggoon émission bi neex waaye xamul ne bi muy wax ne mënul yóbbuwaale seeni i papa. ministre ministère bi moo yor wàllu famille. waaw wax nga dëgg. léegi ministère bi nga xam ne nee nga ay taalibe benn feebar dafa ñëw da leen di aar ci feebar bi tax nga leen di jël. ne seen nekkin ci daara ja baaxul. waruñoo nekk ci mbedd mi ndax wóorul. foo leen di yóbbu ci ay centre dëkkal leen fa ay fan ñuy lekk ka di yeew. tey ay nit. benn musiba ñëw ñu nekk ci biir ndox ñooñu nga waroon a jël yóbbu leen ca centre ñu fees fa dell su fekkee protection des enfants rek moo la tax a jóg mais bu dee tas daara moo la tax a jóg nag moom loo yóbbu kenn dana na yi dana dana leer ci troisième point bi insha allahu taala beneen bi euh, imam Babacar mooy Icon City mm-hmm. dégg nañ nga def ci benn bayaan ci sa mm-hmm. jumaa mm-hmm. am loo xam ne nii yaa ngi ko ciy tiit. Mhm. lan moo la tiital ndax loolu noonu lay Sénégal yokkute la ci moom. Mhm. dëkk boo xam ne nii amul ci euh, Afrique. Mhm. ñu ñëw indi ko Sénégal dëkk boo xam ne nii bu su la. am lu nekk tabax yu rafet. kon nag wax dëgg fa yàlla xaw ma lan moo la ci war a tiital yaa imaam. wallaahi gis nga Oustaz bu ma déggee projet Akon bi. man avant may xam projet bi Akon moo njëkkoon nekk sama problème dèjà. Akon dong man kaala woon ci man parce que Akon ci boppam dafa porté wul benn jegewu ko sax ngeen baal ma sax ma joxe ci benn misaal bu ndaw yow en tant que nitu diine di jullit nga dugg ci réewu diine ñëw lu toll nii am na benn kilifa diine bu ko recevoir mhm. ma bañ a tudd tur xam nga léegi média bi lépp direct lay daw mhm. heure bi mu yegsi di dem di ziyaare ji kilifa gi justement heure julli la mhm. kilifa gi ànd ak moom ñu dem jumaa ji pour ñu ziyaare walla benn kilifa bu mag foofu ñaanaa fa ay aajo bi ñuy dem mu ngi naan ko ah tàkkusaan dafa jot moo tax ay eh, kon ma ngay dem ci jumaa ji dañuy julli ji mu dugg taxaw ziar génnaat dem sëriñ bi toog ci jumaa ji julli moom mu génn dem yoonam te loolu barki démb la ko def ba léegi vidéo baa ngi ci net <laughs> te lépp direct bi la koo jël <laughs> taalaat otoom dem ñibbi <laughs> loolu dafa lay won ne kii diine sorewul ci moom nit ku mel noonu nag te nee na jullit la wax nee na jullit la hmm. te liggéeyam ci Amérique daf ci bokk xeeti musique bi gën a bon moom lay def mooy musique sex mooy moom dafa bokk ci ñi nga xam ne seen musique mooy dañuy wane awra rek ay jigéen la ñuy simmi ba nu set xeetu musique la fa boo xam ne moo ëpp xaalis ci musique yi ñuy def moom ci loolu day yëngu mm-hmm. am ci xaalis bu bare am fa succès même Amérique sax amuloon nañ ko fa problème ba naroon ko fa rey hmm. ba mu daw ñëw Sénégal parce que ñoom Amérique loolu dafa bokk seen aada boo nekkee artiste boo xam ne dem nga ba eggi yenn niveau yi da ngay mëdd ñi ci des hmm. ñooñu dañ lay en mën nañ laa kër ñu rey la hmm. bi ñu ko bëggee rey ci la dawoon ñëw Sénégal mais ànd ak loolu yëpp su doon ne mi ngi porté diineem ak valeur u Sénégal yi loolu du am benn problème ku mel noonu nag heure bu ñëwee di dugg si ci yow da ngay nga xool ko rawatina mu indi projet boo xam ne dañ ne projet bi ab ville la ci tabax comme ni nga ko waxee ville boo xam ne ay tabax yu bakkane hmm. tabax yooyu amul ci Afrique amul sax ci àddina laay wax hmm. àddina wërngal këpp ñoom ñoo ko daan imaginer di fa jouer ay film hmm. léegi moom bu tabaxee cité boobu ñu may ko autorisation mu am fa ay aéroport am fa ay hôtel am fa ay feccukaayam am fa centre yu mu ubbi am fa xaalisu boppam kooku lan la ñu soxlaalati ba pare nee na dafay former ay artistes. ah Siré bi day am xaalis su boppam. am xaalis boppam man loolu sax moo. gënoon sama bopp non non. du du bu bees bi waa ji ñëw seen Afrique. Eh, nu mu tudd éco xaw ma éco ah éco déedéet. ah. Akewin Akewin moom lépp sax ci moom lépp ci boppam la dellu. Akon City am xaalis Akewin cest à moom dafa mel ni dafay tabax boppam pour imposer ñu boppam te ñun xam nañ ne xaalis boobu amu ko. cité bi xanaa nekkul suuf su Sénégal moom biti Sénégal la ko moom te li ñu ko jox ci ay ectare man daal waa Mbodiène jaaxal nañ ma. oustaz ñii dañ ne mille milliards lañ ko jox junni mille hectares. Mhm. junni hectares. Mhm. am na sax ñu wax ne ñaari junniy hectares. Mhm. Ndengler 75 hectares lañ leen jëlal 75. juróom-ñaar fukk ak juróom. ñëpp dégg leen. ñu coowal leen ba ñu delloo leen. waa Mbodiène ñu jëlee leen junniy hectares jox ko Akon. ay kon bi mu ñëwee di waxtaan ak ñoom fekk na mu waxtaan ak état ba d'accord ba ba yore kayitam ñëw di def conférence presse nga li lay wan ne nawuñu askan wi sax. Hmm. dañuy jaar ci kaw dem ci nguur ga. Hmm. lijjanti kayit yi ba am ko ñëw toog ak ñoom ne leen dama fi indi projet. Hmm. te am na baykat yoo xam ne dañoo nangu seeni suuf ba ren bayuñu man am naa ci lu leer. koo xam ne nee na moom yoroon na deux hectares di bay. ren bi muy bay dafa am kum ab mu abal ko benn pukus fa la bay pour lu mu mën a dundee moom. ci mboojeen ci mboojeen gii. parce que suufam leen jox Akon ne ko nag projet bi bu baaxee yéen ñëpp da ngeen ci tedd ñu nangu suufam ba jël lu ma deux hectares ba amul fu mu béy te du moom kese. Mhm. ay nit yu bare mais dañ leen a yaakaar loo am ñoo xam ne fañ daan jaar di dem gii di nappi yëpp dañ leen ko interdit parce que ci suufu Akon la bokk. ñoom mënatuñoo nappi léegi. mboojeen site euh, bi fan lay nekk ci Sénégal mboojeen ngi ginnaaw mbuur jëm booru Saly ci kaw mel lu jëm Joal. cité bi côté Mbour yooyu lay nekk. waaw te soriwul géej gi dafa jege géej gi xam nga ñoom dañoo bëgg géej bëgg ndox. Hmm. lu lu bakkane rek la ñuy wër. cité bi day am aéroport boppam. day am aéroport am boppam. am sécurité boppam am sécurité boppam am ay école am am ay hôpital moo tax man. foofu soriwul aéroport. Euh, Blaise Diagne bi déet ñoom seen aéroport bopp. eh kon am réew lay tabax dañu naan cité rek. am réew daal ci biir réew daal. am réew lay tabax ci biir réew. parce que ab dëkk. yaa oustaz dëkk bu amee hôpital. am sécurité. am hôtel am aéroport am xaalisam lu ci des. dara des dafa am benn dëkk bu ñuy utal indépendance ci biir Sénégal ci biir Sénégal li Casamance bëggoon mu teg ko. merci wax jàngoo lii la Casamance doon wër mu tëkku ticc et kon ñëw bëgg ko am ci benn mille milliards lan mooy 3000 milliards ñetti junniy milliards loolu ñun suma pétrole bi ëpp nag. Mhm. loolu lii ñuy joxe ëpp nag. zircon mu li tax ñu jox ko ko caaxaan ma mu fay def ak lañ fa war a légaliser ëllëg ak ndax ay kon kese la mukk déet mais oustaz ay kon benn nit la jël junni hectare tabax fa lu ëpp junniy kër ñan ñoo ciy dëkk xanaa du ay doomam c'est-à-dire ay kon am na bi bu ne ci ginnaawam te sax ma wax la ne la am na ñu commencé jënd ci kër yooyu te kenn du ci sénégalais ñenn ñi Canada lañ dëkk ñenn ñi Angleterre ñenn ñi Qatar ñenn ñi Dubaï ñi ngi réserver ne ñoom bëgg nañ ñu jaay leen fa suuf léegi Akon moom ñaata la leen di jaayee suuf si moom dañ ko ko may. Mhm. moom ñaata la koy jaaye mhm. bu koy jaay ci ban xaalis la koy jaay. Mhm. parce que moom yorul faa moo tax man buñ ne économiquement dañ ci gañe sax man jaaxal na ma. parce que bu dee am na mu ne boppam lan lañ ci mën a gañe ñu. mais loolu man imaam. Euh, lu doy waar la. ñun ñu suñu xel yi guddul. dafa bari yuñ ciy xalaat di ko ci di ko ci laaj yi mooy tey Sénégal Xaddafi euh, <coughs> bëggoon na fi Afrique. ñoo am suñu monnaie bopp. waaw. Europe ñëpp opposé wu bañal ko ko. Mhm. ba mën nañ ne ak faatoom ak woote Afrique nekk benn Union africaine. Mhm. loolu bokk na ci li ko indi ci ñi xam li ko faat. Euh, Afrique ba léegi xaalisu boppam su ko bëggee France a koy garanti. waaw léegi euh, Icon. Mhm. xaalisam boobu noonu ban réew lay fonctionné ci àdduna. Hmm. loolu noonu question la bu ñu war a laaj. dëgg la lënkaloo na ak ay réew nag ñoom dañuy yor seen xaalisu bopp mais dinañu fexe ba lënkaloog ay réew yoo xam ne. lépp lu bëgg jë waaw ñu garanti leen ñuy mën a jëflanteeg ñoom di jënd di ñëw. c'est-à-dire eh, kon gis nga bu demoon ba dëkk boobu pare. Mhm. faalewul Sénégal amul ak ñoom affaire même état bi sax du am dooley def ci ñoom dara parce que ñi leen yilif ñu nga bitim réew. ay eh, kon dafa nekk benn appareil bu ñu fa sampu rek. parce que Sénégal la dëkk sénégalais la moom moo mën a dikk wax ak ñun ñu jox ko suuf si waaye américains yi ñoo ko moom franc-maçon yi ñoo ko moom góor jigéen ñi ñoo ko moom musiciens yu asaru yi ñoo ko moom xëy na nag mbir moo gis dana am ku ko jiite en tant que woon sax mu ñëw jiite leen ñu ñëw fii pour ñu defar plan bu mel nii mais nag mhm. man maa ngi wax nguur gi ne leen nañu ragal yàlla ci projet Akon bi dañoo nangu ay suufu baykat dem jox ko Akon di leen yaakaarloo ëllëg nangu ay suufu nappkat jox ko Akon di leen yaakaarloo ëllëg Akon nee na dafay def ay tool toxal ay tool ba pare nee na léegi dafay investir ci agriculture mm-hmm. mais ñam fa fekk ñuy bay di dundee da leen a gën a yell ci suuf si ñoom ñu dëkk fa seeni maam ba léegi mm-hmm. te li ma gëm mooy ville ba bu doxee yàlla bu mu antu nag mm-hmm. man man damay ñaan yàlla bu mu antu yàlla na gàntu bu demoon ba antu waa Mbodiène danañ fa jóge ndax suuf soosu dana cher cheraay boo xam ne mhm. ku fa bëgg a jënd ci terrain di nga ko wàcc te dana ñu jënd seen terrain yëpp toxal leen ci àll ba mhm. ñoom nag dootu dootuñu dootuñu amul sax destination fañ ko fañ ko jox kay bu feesee te ñeneen ñi soxlawaat ñu yokk danañ ko yokkal te boobaa buñ koy yokkal moom mboojee nag ku doon mboojee du doonati priorité ci cinquante hectares la tool hmm. nee nañ ci kanam danañ ko yokkal ba cinq cent mhm. ci kanam danañ ko jox mille hectares mhm. xam naa bu doxee danañ ko jox deux mille hectares mhm. c'est-à-dire ay eh, kon réew mi mu bëgg a tabax ci réew mi man damaa gëm ne <laughs> sénégalais yi comprendre guñu fi ay eh, kon jëmug ñun ak ngóor jigéen la fi andi man awuma ci sikk sàkk sax wallahi dëkk ba bu paree ay góor jigéen danañ fa nekk di fa takkante te ngeen mënu ci daal ay lesbiennes danañ fa nekk ay jigéen ñu jaay seen lépp lu legal ci Amérique dana légal ci Akon City bii. ndax dëkk la boo xam ne diine du ko tënk aada du ko tënk. amul diine. est-ce que am na juma projet bi ci amul jàkk amul juma amul église. am ah réew mu toll nii nga di ko tabax. amul jàkk amul juma amul église. mais est-ce que imaam loolu tamit defuñ ko ci te yëgu leen ko. waa mais loolu moo lay wan ne suufeel na ko moom bu demee ba présenté projet bu toll nii tudd hôtel yi. Mhm. tudd boîte yi. Mhm. tudd aéroport tudd yëpp. Mhm. tuddul jàkk tuddul église. moo lay wan ne loolu. d'accord même bu fa doon am lu faible la ci moom. <laughs> te nag moom nee na ñim la ngoog du ko wax. loolu mooy li gën a garaaw ci discours am. Mm-hmm. nañ déglu discours ay kon bi nee na sax am na ñeneen ñum lëngool ñoo xam ne mënagul a wax seen tur léegi léegi. Mm-hmm. parce que mm-hmm. na ñu ne sama ginnaaw mais du ma la ko waxagum léegi nag. ah nangu la wax ñim la këloo ci. nangu nee na du ko wax. Ah moo ko wax ci làmmiñu boobu ci conférence de presse bi. mu ne wax ñi ma àndal ci projet waaw si parce que nee na ah affaire de sécurité la euh, secret secret secret la waa nañ ko may mu denc seen tur daal mais ci kanam dina leen affaire de de secret dañuy gëstu ci beneen côté bi xam nañ euh, service secret yi ak euh, lobby secret yi mhm. secret secret moom ah, benn terme am na ci kuréel boo xam ne seen lépp côté côté waaw benn buñ côté la waaw mhm. benn terme code la ñaareel bu ñu secret secret rek Mm-hmm. ñaareel am na lu ñu ci jàngal mm-hmm. waaye man daal lenn moom ma ci gën a tiital bi ma ko déggee ñuy wax naan baax naam baaxul mm-hmm. man question boobu laa njëkk a posé kuy jullit mm. euh, ah. bu ne baax na ne ko ndax dana am jumaa kuy catholique ne baax na ne ko ndax dana am église ah. nga déglu ko lu mu tontu rek su boobaa nga ne ko kon baax na wala bon na ah, su ne du am jumaa boobu dëkk saay-saay la la naar ba waxoon <laughs> dugg ci biir dëkk bi ne fii am na juma ñu ne ko amul juma mu ne dëkk say-say dëgg la. dëkku say say. ay jullit yu dëkk ba dëkk ba jeex. Ah. ñu tabax seen kër amul juma. dëkku say say. Oh. Sénégal yi munoo ñëw fekk ñu nekk cent pour cent ay coréens. quatre-vingt-quinze uh-huh. pour quatre-vingt-quinze pour cent yi musulmans cinq pour cent yi chrétiens. Uh-huh. nga ñëw ci biir dëkk boobu di fa tabax te amul juma amul église. ah ñooy tabaxal. kon moom ñi la ñëw moom ay say say lañ. tabaxalul ay jullit tabaxalul ay catholique tabaxalul ay juif ndax bu doon ne ay jullit lay tabaxal danaa am mosquée ci biir ndax jullit ba nga xam ne ma nga jógee ko Arabie Saoudi wala ñëw jënd mhm. këram fii li muy njëkk a laaj ci mooy ndax am na mosquée mhm. xanaa fu mu dëkk jullit dana jot euh, na mhm. ñenn ñooy dem àjjuma ba ah, ne ko tabax amul juma amul église ah. léegi catholique bu dëkk France waroon cee jënd si xanaa dana laaj ci ndax am na église bu dëkk ah, a xam ne dëkku saay-saay la <laughs> <laughs> li naaru gànnaar bi waxoon. loolu moom il faut ñu laajte ko bu leeree. yow ñu xam ne dëkku say-say. yow oustaz dama gëm ne bu yeggee boo moytuwul. Mhm. ku fay dem di nga am visa. man gëm naa lu jógee fii war a wàcc. ñu ne la wutal papier pour wàcc. mu ngi City. loolu. nañ ci Sénégalais yi bañ a bàyyi xel. doy na waaw côté nguur gi moom waxuma leen parce que ñoom xam naa seen position bu yàgg. d' accord ñoom amuñu problème mu valeur ak diine. ñoom alal lañ am problème. Euh, jërëjëf euh, Serigne Babacar xam naa dañuy ñëw nag ci sunu minute yu mujj yi waaye euh, am na loo xam ne damay arrière tuuti ndax mun mënuñ cee ñàkk dellu si balaa ñoo ñëw ci mbirum mbirum daara yi nga xam ne ci la ñuy jeexalee mooy directeur ONAS yi dafa am benn télé buñ ko dalaloon. Mm-hmm. muy Lassana Sakho suma juumul. Mm-hmm. wane na daal sénégalais yi pour euh, mbir mi nekk lu saafaraw mhm. faaw nag ñu wàññi jur gi bu ñu mën a tënk rek waxam <laughs> Omar dañuy may rek ñu seetaan euh, waxam jooju noonu le euh, déglu lépp ba mu jeex mhm. ñu dellu si ci loolu insha allah du du du problème mais boo amee dëkk boo xamee ne chaque année la population chaque vingt cinq ans la population est multipliée par deux te nga ne affaire démographie du problème c'est que je pense que son jugement n'est pas objectif. Ça n'est pas possible. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la démographie Ce qu'il faut faire face à cette démographie, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le thème, mais ce qu'il faut faire face à cette démographie, mm -hmm. ce qu'il faut faire, si on n'est pas capable de suivre en termes de création de richesse, il faut aller faire comme ce que les Chinois avaient fait. Comme la C'est des sujets tabous, il faut limiter les naissances. mais c'est pas le thème de la discussion aujourd'hui mi ngi noonu sëñ Babacar ñun ñoo ko dégg naw euh, Oustaz man borom vidéo bi bi ma ko seetaanee dama ne kii mbaadu dafa jël daa cest à muy ñëw mbaadu dafa fóon lu bon <laughs> ndax yow ñi ngi waxtaani inondation nga ñuy wax naa ñu nañ wàññi suñ jur yi comme yàlla ak yàlla yi mais est-ce que doon nit ñi li dëkkee moo bari moo tax mu wax loolu ba tax fi ñu dëkk ndox mi amul fu mu jaar dëkkin bu bari ba léegi jotewul dara ak ndox muy jàll ñun mën nañoo mat un milliard personne mais ñu utal ndox yi ay yoon rek mën nañoo nekk fukki nit ba pare am problème mu ndox hmm. mën nañoo nekk milliard nit bi ñu am problème mu ndox moom problème mu xam-xam lañ ko doon laaj moom moo jiite ONAS hmm. moom wàllu ndox yeeg poto poto yeeg yëpp daanaka moom lañ ko dénk hmm. su dee moom fii la xolam toll fii la xelam toll ci Sénégal yi mooy moom su capableul pour mu saafara lii ñu ko dénk nee dañuy wàññi suñ jur yi non moom bu capableul na bàyyi ñoom bu ñu amul pexe ci ndox mi amuñ pexe ci mbënd mi mais na bàyyi mais yaa xayti bu mu ñu reyloo suñu doom yi cest à man maa ngi ragal ne ñoom buñ ñu planning loo ñu bañ mbaa kon duñ def ay effet pour wàññi ñu parce que nag bu dee wàññi bi mooy solution moom yéen seen solution jeex na laasana mii moom saaxo dong la mën a sant xam nga saaxo sama kan la man xamoon naa ab saaxo saaxo mu am xelum duggut <laughs> mais nag nañu bañ wàññi njur yi jotewul dara ak lii lii xam-xam la laaj lii ay pexe la laaj lii xarañte la laaj lii xel mu rëy la laaj lii yërmande la laaj waaye jotewul dara ak wàññi ay njur loolu beneen projet la loolu projet Malthus la loolu projet Bill Gates la su fekkee nag dafay liir livre yooyu lu bare bari muy des ci boppam ba tax émission bu mu toog wax ko fa lii moom mbokk ci mhm. franchement inondation moom mhm. amul rapport ak wàññim jur ñu lay laaj suñu sept cent cinquante milliards nga ñuy wax wàññi leen seen jur voilà ana xaalis bi nga naan nañ wàññi njur gi mais c'est pas normal la daal moom saaxu la mën a sant <laughs> doy na waar saaxu saaxu yi daal <laughs> doy na waar doy na waar loolu daal xam naa moom euh, reeloo na sénégalais yu bari tamit mm-hmm. te it énervé na sénégalais yu bëree bari effectivement euh, moom waxu laa sana saaxu jooju noonu la kenn mm-hmm. xamul mm-hmm. waxam ji fan fan la ko fan la ko jëlee euh, dama leen di faral di wax ne léeg bu fekkee ne dañ la jiital te mënoo communiquer utal ku mën a communiquer fu ñu la mu dem fa wax te nga mooy li Serigne Cheikh doon wax rek am na ñoo xam ne bu ñu naree wax mat nañoo fay pour ñu noppi am na ñoo xam ne buñ naree noppi mat nañoo fay pour ñuy wax moom nag xam naa ñàkkul. dafa bokk ci ñi war a fay pour muy noppi. Euh, ndax ONAS bi rek problème bi ci nekk kenn xamul nu mu toll. keroog ñu ngi ànd dem parcelle bi ñu def suñu tournée bi. Ah. gis nga buntu kër gi ñu nekkoon nee nañ un million lañ fay ci seen euh, tiwo ONAS boobu noonu la ñu proposé woon leen ko. pour seen ndox kër yi di fa versé wu. gis nga fi ñu gaare noonu ca buntu kër ga tiwo baa ngay buuj. sotti. waaw unité 18 parcelle. ba pare benn bi amul kubéer. ak ah, mu ngi noonu. fees dell ak ndox fees dell ak ndox ñu bàyyi ko noonu. jël benn bant dugal ko ca takk ci xaw ma moor sax xaw ma lañ ca def noonu. moom loolu la war a régler moom balaa moo wax sénégalais yi nañu wàññi seen jur gi moom budget yi nga xam ne moom lañ ko voteel ak sénégalais yiy fay xam nga ñoo xam ne ni population buy fay un million pour war a branché ci say teewu nga fayee ko kooku mu fay ko ba noppi te ay année muy am même problème tout le temps ñu pour ñu war a ñëw ñu bàyyi fa loon problème boobu noonu moom laa sax ne loolu la war a régler moom mooy ONAS problème yi ñu am ci seen tuyau yi. balaa ma wax mhm. sénégalais nañ wàññi seen jur gi. loolu noonu la euh, mënuñ ci woon a ñàkk ñàkk a dikk euh, beneen bi sëñ Babacar mooy mbirum euh, daara yi <coughs> jamono yi yëpp ñu ngi ciy wax depuis jamonoy Covid mais dafa am lenn loo xam ne nii moom laa bëgg ñu ubbeeku. sëriñ daraa bi nekk fële ca Kaolack ku ko xamul it dégg nga turam. ci ñi mu jàngal ñi mu formé ci at yu baree bari ba ñi jàngal tey ñoom ñooy jàngale mm-hmm. mu am benn bërëb boo xam ne nii joxoon nañ ko ko mu dem dëkke ko ba jëmmi jamono tey mm-hmm. euh, SNA e ñëw ne bërëb bi kat dafa am loo xam ne dëkke na fa te ñoom ñoo ko moom dañu war a toj jumaa jaag jàkk jaag ba ci sax ne def na fay armel mm-hmm. ñu déglu euh, déclaration bi nga xam ne euh, def na ko ci ñu del siwaat ci aaxiru zamaan bi aleykum bi Euh, wax ji daal mooy ñun ay jullit lañu gëm nañu yàlla fii man maa ko fakk am naa fi vingt ans doon naa fi bay ay xaal du nekk bay naa ko fii gannaaw gi fi ma nekk xat ci biir dëkk bi saara xat taalibe dem ba ma ñaar tamit taalibe xajatuñ fa ma ñëw dëkk fi dëkk naa fi juróomi at ñu doog a ñëw di ko lotissé biñ ko lotissé ñëw fekk ma fi ne ma yow fi nga dëkk ne may fi am naa fi cent mètres yu carré dañoo ko mayo rek pour ma def fi néeg pour jaamu yàlla ak école jàngale rek alxuraan ak xam-xam ñu mu dañ laa bëgg a lotissé may leen ci kaw li nga fi am daal du ngeen ko laal ñu ne ma ñi la ko may ñoom ñu ne ma waa waa déedéet ñoom ñu ne ma ñi la mayoon fii gënuñoo gëm yàlla gënuñoo gëm alxuraan gënuñoo gëm yàlla liñ la mayoon dañ koy yokk waaye duñ ko wàññi ñu ñëw lotisseel ma ko fekk cent mètres la ñu def fi cent soisante cent cinquante mètres sur cent trente préfet ngi ci woon kii kon euh, chef seer euh, eaux forêt bi borom dëkk jéemun président communauté rurale bu dee ñëpp ñu àndoo ñëw fii dagal ma ko ne ma dangay ñëw die bi sa alxames pour liñ la may ñu wala di continuer wate alxames ma xëy dem kayit baa ngi nii ñu defal ma délibération ñeent fukki conseil fa nekkoon ñëpp ànd d'accord ñu jox ma kayit bi ne ma da ngay dem alxames gaañaay boo demee préfet signé ko ma dem préfet signé kayit baa ngi nii délibération fukki at ak nangam ñu ngi dëkk fii tabax fi jumaa ji tabax fi daara ji def fi néeg yu bari yi dëkk fi lu ëpp ñaar téeméeri xale ñu nekk fi mu def fi ay sëg sama soxna faat na fi laa ko suul samay doom fi laa leen suul ma toog ñëw ñu bëgg a wax ne aslem ñoo moom fii dañuy ñëw toj ko toj jumaa ji toj daara ji toj xabru yi ma ne leen waxu ma ne du am ndax aw doole waaye nag ci yàlla yoodu waaye jumaa ku ñëw bu danga ko a toj ci sama kaw ngay jaar dër ma xabru yi ku ñëwee da nga ko bëgg a toj ci sama kaw ngay jaar tracé ma mbaaru daara ji ku ñëwee da nga ko bëgg a toj ci sama kaw ngay jaar rey ma doog toj da ngay toj billaahi wallaahi tallaahi loolu laal la amoon ci lu may wax jërë ngeen jëf ya nii sëriñ Babacar muy mbir mu doyati waar man nag boobu ba léegi bi ma jotee video bi maa ngi am gëstu yu ma ci gëstu ba am naa ci gëstu yu xóot xóot mm-hmm. am na loo xam ne luñ mën a wax ci kaw la ndax kilifa laa ci doon waxal ku xam dossier bi mm-hmm. am na loo xam ne mënaguñ ko wax ci kaw danañ ko euh, topp incha allahu taala waaye liñ ci mën a wax ci kaw pour mu leer ci bopp sénégalais yi mm-hmm. mooy Serigne Saïd Darame deful lu dul la mu war a def jaarul lu dul fa mu war a jaar papier yooyu nga xam ne nii yor na ko mairie moo ko ko jox salon gëstu bi ñu nga xam ne gëstu nañ ko te am na loo xam ne mënaguñ ko ko ko wax ci kaw. léegi nag la nga xam ne moom la ko mairie jox waa SN HLM dañu wax ne daf ci am loo dafa duggaale ñoom ci seen zone mais Serigne Saïd Darame duggul ci zone SN HLM ci ñëw fàkk dëkk mais ay papier moo ko dugal foofu na les papiers yoo xam ne ni yor na ko léegi liñ ci mën a wax mu nekkagum lu gàtt. mooy benn solution mënula juddoo ci nañ ñëw di jéem a toj ay jumaam ak i daaraam ak armelam Sénégal ba boola boo xam ne jaar na fi war a jaar ba am ay papier ba tabax dëkk lu toll ne jumaa lu toll ne daara ba ak njabootam faatu fa mu jël leen denc leen ca bërëb ba am ay armeel defe naa SN asalem oo euh, Sine asalem oo Saalum asalem lu mu ci ci doon am na luñ mën a waxtaan ak moom mais nañ waxtaan ak moom pour trouver solution SN HLM terrain yi mu yor sénégalais yi la koy jox du da koy jaay pour nit ñi dëkkee ko fekk na koo xam ne dëkkee ne ba noppi la mu dëkkee bu fekkee dafa dugg ci seen zone mais nañ waxtaan ak moom du bañ xanaa ñu laaj ko ne ko joxeel temps mooy njëgu terrain yi mu fay ko ñu bàyyi ko mu continuer di dëkk li nga xam ne moo nekkoon ci seen zone waaye koo xam ne dëkk na tabax daaraam tabax jumaam tabax jàkkaam euh, wala tab ba ci ay armée lam nga ñëw ne tey da ngay jumaa ja da ngay toj ja da ngay yëkkati armée loolu noonu le neexu la dégg ci ay nopp ba tax na kon directeur SNHLM lay waxal nañu jéem a trouver solution ka bu bokk la naan dañuy jéem a toj daaraam ñi ndax deful benn benn lenn lu mu war def fi jaar la war a jaar mairie ba ka lañ war a waxal mairie ba nga xam ne moo ko jox foofu noonu le ba noppi ñu def këyit yi fi mu war a jaar yi ni ñu ko ni ñu ko waxee dem na ci mairie ba conseil yi ñoom ñoo signé délibération mairie préfet bi signé ko kon moom këyitu état la yor ki nga xam ne jaar nga fi war a jaar fàkkoo dëkk ba état moo la signé ne fii mën nga dëkk bu toogee ba tey SNHLM d' accord ne nañ seen titre foncier la ñoom ñoo ko moom yàgg na depuis xaw ma 88 lañ wax xaw ma 89 ci gëstu yi nga xam ne amal naa ko ci mu nekk seen titre foncier dugg na ci ñan ñoo ko ci dugal mairie la mais nekkul ne dañuy ñëw kat ne dañ ko fa yëkkati ci doole ci façon boo xam ne nii euh, mënuñoo trouver solution solution mën naa foo xam ne sénégalais yi nga ko bëgg a jox pour ñu dëkkee ko am na sénégalais bu fa dëkk nekk fa moo ki taalibeem di jàngale di yare tabax juma tabax daaraam armée li nekk fa mais kooku noonu la ñëw naan da nga koy yëkkati defe naa am na leneen luñ mën a trouver solution ka lu bokkul ak yëkkati loolu nga xam ne Sénégal ñu ngi koy dund fii mu toll nii. jërëjëf euh, Oustaz Makhtar. Euh, vidéo bi ñu jàllale léegi. ba tey dafa dugg ci wàllu daara. ndax euh, boo dégloo góor gi li mu wax xam ne wax dëgg yàlla moom jaar na fa mu war a jaar. Hmm. parce que suuf fii ci Sénégal. mënoo ko wut fenn lu dul mairie bi la gën a jege fa ngay dem nga am fa délibération mairie yi ay démembrement de l' état lañu cest à moom état la jëflanteel léegi nan la état mën a jëlee suuf boobu jox ko góor gi te saytuwul ba xam suuf bi am na ko ko moomam de ba léegi góor gi nekkul ci njuumte hmm. moom dem na fa mu war a dem su doon góor gi dafa ñëw fàkk dëkk lu mu fa yàgg-yàgg bu yàggee danañ ne ko sax jógal te man sax bu boobaa bu fa defee fukki at ñaar fukki at bu buñ la ko jógal du ma d'accord mm. parce que munoo toog di xool nit mu ñëw dëkk ci suuf bu jaaduwul nga di ko xool mu tabax mm. ngay xool mu def jàkk ngay xool mu def daara ngay xool mu def armée ñaar fukki at nga ñëw ne ko jógal fan nga nekkoon bi muy tabax mm. te Sénégal léegi dañu tàmm daaneel ak màbb te bala ñoo daaneel dañu lay bàyyi ba nga étage gis nga li xewoon fii gàddaay mhm. mais nan ngay xoolee nit di teg brique ci suuf bu jaaduwul nga di ko bàyyi muy tabax ba mu kawee nga ñëw ne ko dama koy daaneel mhm. loolu boobu xeetu ñàkk yërmande dafa jéggi dayo mhm. titre foncier nag képp ku koy état bi jox dangay yore suuf bu am doole waa ñoom góor gi dëkk foofu lu mat ñaar fukki at wala fukki at parce que foo def daala def fa jàkk suul fa sax say njaboot suul fa yàgg nga fa ñoom boobu ba léegi lu tere woon ñu signalé lool. encore biñ ko gisee lu tax demuñ ci mairie ba. ne leen kii toog fii ko fi teg. ñoom waruñoo jëflante góor gi ñoom nañ dem wax ak waa mairie. nooy amee titre ba nit dëkk fa lu mat fukki at jege ko nga bàyyi ko fa. te yëgoo. <laughs> ou bien boo ko yëgee yaa ngi ko muy seetaan. Mm-hmm. ba mu neex la nga néew di yëkkati. yëkkati boobu du solution. Mm-hmm. man du ma mës a d' accord ñuy daaneel jàkk. ak condition yu mën a mm-hmm. wala daaneel daara. wala sulli armel te buñ ko daaneelee ba pare. kër dong la ñu fay def dëkk. bu ñu dindee daara ji kër dong la fay. def loo xam ne intérêt public la. voilà ay personne ay intérêt privé la. bu ne talee fi waroon a jaar. wala ah. hôpital wala nangam hmm. xam ne nii dafa dugg ci biir lotissement boo xam ne après. ay kër la fay nekk voilà mais nañ ko mhm. kii tabax na mhm. na ba pare. mais nañu leen pousse rek jox leen feneen. parce loo xam ne mairie ba moom moo ko moomoon hmm. la am loo xam dafa duggaale ci biir terrain SNSL. waaw waaw ci biir titre foncier. waaw mais foofu nañ xool espace bi. su dee jàkka ja dafa dugg. nañ xool xayma bu toll noonu. ñaar mu fey leen ko ci xaalis. wala ñu daggal ko fële ci kanam. Hmm. mais buñ daaneel jàkka ji parce que loolu daaneel ko ñaata million nga yàq. Hmm. loolu am na fu mu xajoo. bu dee armel yi la. bu dee daara ji la. bu dee këram la. te nga mën a pousse ci ginnaaw am fa espace bu toll noonu mbaa nga laaj ko somme bu toll noonu ci xaalis mhm. nañu bàyyi gaaw a daaneel ay tabax mhm. te ki ngay daaneel bi muy tabax yaa ngi koy xool mhm. loolu loolu ak ñàkk respect la loolu ñàkk fonk nit ki la daa rawati nag bu jëmee ci daara ab jullit nag wax dëgg yàlla loo dëgër dëgër xool su nit tabaxee sa suuf jàkka maslaal ak moom même dee am nga droit daaneel ko fexeel yeneen i pexe yoo mën a amee beneen suuf nga wut ko fa te yàlla rek tax ngir nga ormaale ko néegu yàlla bi. d'accord incha allah. léegi nag euh, ci cadre général bu jëmee ci daara yi fi Sénégal hmm. toll. ban jàngat nga ci am ndax euh, daara ni ko maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz doon waxee te ñu dëkk di ko ni waxee. Hmm. mooy euh, waxoon nañ ci ci jamonoom aw nit ñëw ci jamonoom. Hmm. waxoon ko lu jëm ci mbirum daara yi. waaye nee na bi ma xoolee gis ne jëmul kër. ci laa ci dellu ginnaaw. wane ne nañu seet sëñ daara ba ndongo ya wër uh-huh. ñu fekk ko ci daaraam uh-huh. li maslaxa daaraam laaj uh-huh. ñu bàyyi ko mu doxal ko lu ñu koy dimbalee ñu dimbalee ko ko mu jeexalee balaa ñoo supprimer daara nañu supprimer doro mu mel ne projet boobu nga xam ne moom lañ ko gaaraloon te mu gis ne ñu ngi bëgg jàngaloo sëñ daara bi loo xam ne ni ay ndongoom dëppoowul ak la sëñ daara bi jàngale kaa ñu dimbale la mais kaa ñu wax la nan nga war a def loo war a jàngale Euh, ci biir mu gis ne lu fiy jëlee daara la projet boobu mel na ne dafay dugul ba léegi ndax ba léegi gars yi ñu ngi jël ay daara di delloo jël ay xale di delloo di layoo ne kat condition yi ñu nekk baaxul ak feebar bi lañ leen bëgg aar yow noo jàngatee loolu am ci mettitu xol man wax dëgg weer yi ñu génn moom léeg-léeg damay toog di xool ay vidéo yoo xam ne li nekk sama xol dama naa lii bu moo ko génnee sax yàlla dama jig mhm. ndax mettit te dafa war a leer ci bopp nit ñi ne du waa daara ñoo demandé pour ñu dimbali leen. yaa oustaz mhm. nit nag kaay ma dimbali la boo ciy xeex ak moom dimbalee too ko su ñëwee ne la dimbali ma ba ngeen di xeex mën nga jàpp dara mais kaay ma dimbali la ba mu jaral ko mu xeex ak yow dama laa bëgg a dimbali loolu du ndimbal te foofu lañ toll ak waa daara. daara demandé wuñ kenn aide laajuñu pour ñu moderniser ko. Mhm. waaye nee nañu dañoo war a moderniser daara yi. <clears throat> man li tax d'accorduma ci mooy. ñi koy moderniser ñoom dañoo moderniser wul seen école yi. yaa ngi hmm. est-ce que xam nga école française bi fi nekk dañ dañ ko war a moderniser. ah mais moderne na ñu ngi tabax tabax yu rafet. moderne de ñun jàngale colonial bi lan ñuy jàngal ba léegi di ñu jàngal ay Mao histoire chinois yi histoire Allemagne histoire Chine loolu lan la jotee xam-xam. Hmm. loolu du xam-xam. foofu àddina bi passé nañu ko bu yàgg. nañu moderniser école bi. jàngal xale yi xam-xam. pas ñu ñuy jàngal histoire u Chine. histoire u Allemagne ak bu France loolu du xam-xam tubaab bi daf ñu nootoon rek bëgg ñoo jàngal culture am di ñu jàngal boppam parce que nee na amuñu culture. man dama d'accord ne njàng mii lañu war a moderniser sax léegi. waa daara dañoo war a jóg ne dañ moderniser école bi. def ci éducation religieuse. parce que ba léegi amuñu éducation religieuse. dañ naan éducation nationale. mais ñun ba xeetu éducation lañ ñuy yar ministre bi ñu dénk ko man maa ngi koy moom ban xeetu éducation lañ ko dénk éducation religieuse wala éducation occidentale wala éducation culturelle ban éducation la kenn xamul en tout cas du éducation religieuse ma mhm. kon dañu war a moderniser sunu école bi mu am njàng mu dëppook xam-xam ba njàng mu dëppook ay histoire rek yu kenn xamul léegi kooku jógee waat fële ñëw ne dafay moderniser suñu école mhm. su fekkee wàllu moderne da koo jëmee ci luxe barki démb xale yi bi ñuy examen yaa oustaz mhm. ci biir ndox lañ toog di examen waaw ma gis ay xale toog nii ci ndox mi seen tànk yi di wéq ndox mi di examen mhm. maîtresse yeeg maître yi téye seen i photocopie di xuus ci ndox mi mhm. wallahi bu doon daara dañ koy tëj Omar boo waral ñu vidéo boobu lay gis nga ko moom xelee mu jàll nga nga dugalal ñu ko ndax dana dana solo lool ne ci école di xuus ci ay ndox maître yi di xuus élèves yi di xuus ñu toog ci biir di jàng dama ne loolu bu doon daara la mhm. ci suba lañ koy wane mhm. ngoon jot ñu tëj daara ji ne lii wooru mhm. gis naa fi vidéo boo xam ne ay mbaaru sàkket la oustaz mbaaru sàkket biñ ne dañuy ubbi école yi dañuy désinfecté école yi même vidéo boobu bu ngeen ko amee ngeen mooy ñu ko Omar boobu wëral ñu ko mooy bi xale nekkee ci mbaaru mbaaru yi rek mbaaru voilà mbaaru ay mbaaru gattax yooyu ñu ñëw di désinfecté bant yi <laughs> non man damaa jaaxle man a waaw lii mooy école bu moderne ndakaaru la ay école tabax yam sooy génn fii ay école sàkket hmm. Linguère gii donc boo fa demee ay école sàkket ngay gis ci village yi hmm. ñoom xanaa modernisation ba yeggul foofu hmm. ñoom seen modernisation même bu doon ci wàllu luxe ba léegi école tubaab bi da koo soxla bu dee ci wàllum njàng njàng mi ñuy jàngale du xam-xam danañ la jàng ba nga yeggi ba nga eggi université am bac te amoo dara looy def dara fii koo fi gis mu am bac oustaz wallahi mënoo koo liggéeyloo benn liggéey parce que jàngul xam léegi nag mu commencé spécialisé wu xoolal mag mu dem ba am vingt cinq ans door a spécialisé wu nañ moderniser école tubaab bi bala ñoo bala ñoo jéem a moderniser daara beneen bi ci des mhm. daara moom soxlawul moderne mhm. moom soxla na tabax nag mhm. soxla na dund soxla na koddaay ku am andil naka Maulana Cheikh Al Hadj si Aziz waxee ku ci am looy dimbalee daara demul yóbbul leen ko la seen maslaxa laaj nga bàyyee leen ko waaye daara moom xam-xam lay jàngale waxoon nga bi projet bi jógee nga ne projet bu amul lax dari mhm. Sénégal nga fi tabax ab école alquran ab école diine. boo xam ne ña cay nekk doon jàng lax dari. dañ fi tiim di ree bu a dee rek. man xoolal sew sew bii wax. Mhm. programme bu amul lax dari te lax ci ngay débee fiq mhm. moom ngay njëkk a jàng pour xam nooy jullee nooy jàppee nooy laabee ban ndoxo baax. loolu doo ko jàng yow loolu ban école la loolu ban xam-xama ci nekk. kon nday Sali Diop Dieng mhm. ak ay gàngooram mhm. ay préfet mhm. ay gouverneur ak ay takk der yi muy àndal li ñu tas ci daara ci covid bi ak léegi kenn xamul lu mu toll parce que nee na daara yi nekkuñ ci condition yu baax dañu protéger xale yi waaw waaw nee na nee naa day protéger xale yi ci feebar bi mais daara yi feebaruñ oustaz bi feebar bi di commencé ba léegi amul benn daara bu feebar amul sëriñ daara bu feebar te monta tam école bi am na feebar dañoo ubbi rek am élève CM2 bu ñu feebar ñu ubbi war rek am ay maîtres yu feebar ba ñu quarantaine leen mais daara yi boobu léegi ñu ngi dox ki déggu ci ku feebar waaye yow nga ba fi ñi feebar ñëw naan da ngay jël ñi feebarul di leen aara dañoo bëri ay caaxaan daara ji yàlla moo leen di aaral boppam gis nga taalibe yi li ñuy lekk ñoom bu ñu ko lekkoon génn àddina du ñu feebar dañuy génn àddina yàlla moo leen di aaral boppam lépp lu ñu ne feebar bi da koy bañ bu njëkk boo demee daara fekk ko fa bi feebar bi ñëwee sax la waa daara commencé am yu bëri yu ñu daw ku mu fi ne seen xale ut seen dund teg def yëpp ànd ak loolu yëpp dañ leen di buddee foofu di leen yóbbu am na daara yu ñu tas yoo xam ne seen biir daara dañu leen fekk dajji seen i bunt Saliou Thiongaan dalal nga ko fii léegi yow kooku lan nga koy aar ci feebar dem jël yóbbu leen centre gindi nga tuddee nga centre réeralaat waaw sant boo xam ne ña ne na la ko yàlla nëbb <laughs> seetuñu sax centre ba sax yàlla xam ne ne daara yi ma gis fii ñoo dàq centre boobu mm-hmm. lekk gu neex gu tax ñuy wax lekk amu fa mm-hmm. naan gu doy amu fa mm-hmm. ay tëddukaay yu baax amu fa xale ya fa nekk dañuy tumuranke di bëgg a dee taalibe boo fa yóbbu boo ne ko kaay génn daw day fecc ndax kenn bëggu faa toog centre boobu bu neexoon taalibe yi fa la ñuy toog mais dañ leen di forcer pour toog loo leen fa te ba am na xale yu ñu fa téye ñoo xam ne bëgguñu fa toog kon ñoom nañu yàlla te bàyyi daara yi amuñu doole ji toll ni ja Feder ba amoon def na ca lu mën tey dem na des na fi daara yi mhm. macha allah euh, loolu noonu le euh, imam Babacar Sy la wax lu mat bàyyi xel la li ma waxoon rek euh, mooy dàqum ganaar ak waxaale sa soxla mhm. gi ci covid bi dañ ko arrêté mooy ndey Saly Diop ak ministère am mënuñoo jóg ne dañuy protéger xale yi mhm. ba jamonoy wal mii dikk te journaliste yi di ko wooyee mbënd xale yi di fay ci biir ndox mi ñu bàyyi leen ci biir ndox mi gis nga moom bu continuer xale yi nekk ci ndox mi jëlewu leen fa yóbbu leen ci centre yi hmm. léegi leer na kon te war a leer ci bopp sénégalais yëpp ne moom taalibe yi la bëgg a xeex mais xee protégé ay xale loolu na leer ci bopp sénégalais yëpp hmm. protection des enfants yow yaay directeur bi protection des enfants yow yaay jiite ministère boobu noonu li hmm. benn feebar ñëw nga ne da nga bëgg aar xale yi yan xale taalibe yi da leen di jëlee ci mbedd mi ñu yalwaan da nga leen di jëlee ci seen daara condition hmm. mais tey ay junni junni kër la ay xale nekk condition yi baaxul hmm. léegi lan la ministère bi di xaar pour war leen a jël yóbbu leen ci centre yi nga xam ne moo nekk Sénégal gépp ndax seen centre yooyu fépp la nekk ci Sénégal centre réeralaatee sànkaateeg yàqaateeg centre yëpp a ngi fi léegi nag centre yooyu nga xam ne ay xale lañ fay yóbbu centre yooyu fi mu toll nii dañu waroon dem fekk mu fees dell bay rembet ñu ne waaw xale yi ñoom fan lañ jugee ñu ne ah xale yi nekkoon ci banlier bi de seen kër yaay yi seen kër papa yi. Mm. dafa fees loolu la ministère bi wax na nañ leen jël indi leen ci centre yi ñu leen di dundal. bañ ngacc ci seen kër yi ba nga xam ne nii nawet bi jeex na ñu delloo jiwaat leen. gis nga loolu bu amul kon léegi na leer ci bopp sëriñ daara yeeg sénégalais yépp ne protection des enfants mooy éliminer daara yi ci Sénégal loolu moom il faut mu leer ci bopp sénégalais ndax mu na da ngay protéger ndaw ñi am ndaw ñoo xam ne ñoom ñooy euh, euh, excellent bi mooy taalibe yi ñoom excellent yi ñoom ñooy ñan mooy ñi nga xam da nga leen di jëlee ci euh, tumuranke indi leen ci centre ñu nekk fay tëdd di nelaw di yeewu ñooñu nga ne da leen di protéger ñi la ñoom ñooy ñan ñoom ñooy baadoolo yi nga xam ne da leen di bàyyi ñu war a fanaan ci ndox mi war a fay yendu ñooñu moom wuñ pour yóbbu leen ci centre ñu tëdd fu baax di lekk di naan kon lan moo nekk ci centre yooyu ba nga xam ne sawar nañ fa yóbbu taali bi mm. mais sawaruñ fa yóbbu koo xam ne ni néew ju doole la bu nekk ci biir ndox mi mm. sénégalais yi question boobu ne ko ñëpp di posé fii mu toll nii mm-hmm. mooy protection des enfants yan enfants lay protéger dane dañ ko dénk moom sax ñoom ñoo ko waxal ñoom seen direction yi ci biir ministère bi mm-hmm. ne ñoom yoruñu wàllu daara am na ñeneen ñu koy gérer mais ñoom liñ leen dénk mooy protéger ndaw ñi gannaaw nag fu ñu gis ndaw mu am jafe-jafe dañuy dem ñu soutenir ko mm. moo tax tamit looloo leen dugal ci daara yi bi ñu gisee ne am na xale yu ci nekk mm. yu ne ci jafe-jafe dañuy dem jéem leen a dindi ci jafe yooyu noonu kon ñoom yoruñu lu jëm ci wàllu daara ñoom ñoo ko wax ci seen direction kon léegi lan nga yor mooy dañu la dénk ne mbooleem sénégalais mm-hmm. buy ndaw mm-hmm. am jafe-jafe mm-hmm. fexeel mu jógee ci jafe-jafe yooyu noonu nga xam ne moom la nekk waaw léegi tey leer na nag kon léegi sénégalais yu baree baree bari seeni doom ci biir ndox mi ah. ni leen fa yóbbu mooy li ma wax léegi am na ku ne waaw euh, bu ñu leen fa yóbboo seen papa ak seen yaay ñu bàyyi leen fa far même ministère bi nag la yàlla dogal moo jiite famille enfant et famille famille waaw moom mooy ministère bi yor wàllu famille famille yaay ci la bàyyi ci la mu yóbbaalee gone mu ne waar femme yaayu xale bi bokkaale ci nga xam ne dafa waroon a jëlaale seen yaay ak xale bi yëpp yóbbu leen ci centre yi ñu nekk fa mhm. comme la nga waxoon sax jar na sax ñu yóbbu leen ci hôtel yi ah oui ñu quarantaine leen fa nañ yóbbu di fay xaalis hôtel waaye pas ñu génne ay 3 milliards ay pour dimbale leen ñu jënd ay xoolal ñu ay pompe ah. ay pompe mbóot ah. ay matelas pour ñu nekk ci biirum ndox mais loolu noonu les kat dafa doy waar imam mooy bu déwénee day amaan pompe ndox mi koo xam ne ma nga fële la ci biir ndox ma di feey mhm. nga ñëw ne ko ka yu jëndal la mat laa jox la ay pompe yoo pompé mbóot <laughs> ak jëndal la ay machines yoo manqué sam ndox bàyyi ko mu nekk ca biir ndox ma mais kooku noonu le ministère boobu Ndeye Saly Diop jiite dafa waroon a jël ñooñu noonu yëpp mu ut fu mu leen dugale su fekkee nag defu ko kon na leer ci bopp sénégalais yi sëriñu daara yëpp mooy protection des enfants xamaguñu lumu ni nga xamee ne genre xamaguñu lumu <laughs> protection des enfants <laughs> su fekkee bàyyi nañ enfants yi am na enfant bu deegum ci ndox mi ci biir sii si si am na ci xale am na ci koo xam ne xale bu ndaw la ca ndox ma la lab mm-hmm. seeti wu ko sax kooku lab ca biir ndox ma ana protection des enfants pour mu protéger yeneen enfants yi bañ a lab ci ndox mi mm-hmm. ñu ñëpp gis nañ vidéo buy tasaaroo Kër Masaar koo xam ne ca biir ndox ma la nekk di fay jënd mburóom def ko ci mbuus war ko yóbbul njabootam da lay leer ne kooku ay xale yu ndaw lay yóbbul ndox moom noonu le ñu gone xale yoo xam ne ñu ngay paccax paccax yi ca biir ndox ma di tànqal seen bopp ñoom xale yi di tuuri mais ana protection des enfants. mais nag ay taalibe moo tax. merci beaucoup. kii dee bu doon taalibe la heure bii daara yi fay tëj. léegi daal taalibe bu dee ca biir ndox ma. tey ñu dee. su taalibe nekkee ci kër goo xam ne nekkin wi baaxul tey mu dee. xam nga lañ ñaan taalibe dem nañ ca kër ga mais nekkin yi baaxul ñu filmer ko wane ko. Mhm. maa bëggoon ñu wane kër yu bari filmer ko. dañuy xam ne du problème mu daara mais problème mu Sénégal la. Sénégal lañ am njiit yu deful lu leen war ci dëkkuwaayu nit ñi ba mel noonu léegi nag mënoo ñëw ci benn koñ fekk fa téeméeri kër juróom-ñett fukk yëpp dëkk yi baaxul nga tànn ca benn bu doon daara wan ko Sénégal yi ne lii moo tax ma bëgg a jële fi daara loolu noon dafa am leneen lu muy niru te ñun xam nañu lu muy niru mais sénégalais yi ñu ci bëri nag yeewaguñu waaye lii moom dafa war a doon benn occasion ci sénégalais yeeg sëriñ daara yëpp ñu posé wu question waaw ñun moom dañu déggoon ne xale yi ba ci lañ tasee ñenn ñi sunuy daara jàpp sunuy ndongo yóbbu ci ay centre ne dañ leen di protéger jël leen di leen delloo ji seen i wayjur ñii moom ñi ngi ci seeni i wetu wayjur seen kër a fees seen yaay ci kaw lal lay toggee amatuñuy toilette ministère ba bàyyi na leen te biir ndox ma te centre ya ma nga fa def yi taalibe ba léegi am na place yu feesagul ba léegi mi ngi fa yéene continuer di war a jàpp jàppale xale pour yóbbu leen ñu laaj ko ministère boobu noonu la gan nga njiite nekk ndax Sénégal gi nga nekk yow jiite ko dañuy Sénégal goo xam ne ay taalibe kese yu am jafe-jafe ñoo fa ne mhm. wala boog am na ñeneen ñoo xam ne ay famille lañu yu am jafe-jafe yu nekk ci biir Sénégal loolu ku nekk war na poser question boobu noonu le mhm. euh, ministère bi nga xam ne moom mooy def lii tey wallaahi surtout oustaz man toilette bi nga wax léegi daf ma choqué euh, nit ku nekk ci ndox mu fees dell franchement man daal seen seen toilette def na ma kaa mhm. ndox fan la ñuy bëgg a dem cabinet fan lañ koy defee te ñu ngi lekk di naan c'est-à-dire est-ce ñu jiite ñoom ñi ngi xalaat lii dëggantaan bu bu ñu tëddee ñi ngi nelaw ko ñii ci ndox mi nan la ñuy def ñoom. Mhm. dem jëndi lekk yomb na mais boo waree tuur ndox nooy def. Mhm. en tout laaj boobu nga laaj ñun ñëpp a ngi koy laaj. Mhm. wa illaa bu leerul. mooy seen yitte moo doon kon daara la ñuy xeex. d'accord soxla wu ñu aar d' accord le 13 euh, xam naa ci la ñuy daanelee. waaw le 13 unité 13. Hmm. Euh, en face hôpital maam Abdou Aziz Dabakh. Hmm. ci jumaay Serigne Modou Gueye ñu ngi ciy woo ñëpp 17h bu jullee ba pare. Hmm. Serigne daar yëpp a fay daje incha allahu taala. dina am kaamil dina am dog dina am ak euh, dina am. waxal taskatu xabaar yi. xam naa oustaz dina ko leeral buy tëj waaye ñu ngi ciy invité mbokk yëpp daal le 13 fii ci Parcelles Assainies unité 13 en face hôpital maam. jërëjëf euh, kon ci woote imam Babacar boobu rek la ñuy feddali ci la ñuy jeexalee mooy la treize la unité treize euh, mboolem sëriñ daara ñu ngi leen fay woo mu nekk benn bis boo xam ne nag dafay door dafay door incha allahu taala sëriñ daara yi waxtaan nañ bu baax ci seen biir dafay door muy tàmbali muy benn bis boo xam ne nii incha allah euh, dañuy dajaloo foofu jullee fa saan ñaan def conférence de presse mais incha allahu taala dinañ fa yéene liggéey ba mu nekk journée nationale ci Sénégal gépp ah. incha allah bu ñu jógee ko euh, unité treize sëriñ daara yi nañ dem feneen ci ah. biir Sénégal ngir nekkat dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy li ngeen di teg sëriñ daara yi yar bu ñu leen yar tax ñu ne tekk doy na sëkk nag sës nañu fi mu toll nii ci miir ba te incha allahu taala keroog ca bis ba ci seen discours dana fes luy wane ne sës nañu ci miir ba kon kuy sëriñu daara nga jot ci euh, information bi na ci sa mbokk sëriñu daara jot kuy parent d'élève mhm. nga xam ne yow yaa doyloo daara ba jël sa doom jox ko sëriñu daara ba mu jàngal ko moo xam daara yalwaan la moo xam daaray internat la moo xam daaray bay dunde la kuy parent d'élève ñëwal ca bis boobu ndax incha allahu taala parents d'élèves yi tamit ñu ngi waajal le treize boobu noonu le ñoom it danañ bokkaale ca conférence de presse ba ñoom it ngir wane lan moo tax ñu wóolu sëñ daara yi ba jël seen doom jébbal leen ko seen droit la kon ñu sàmmal leen seen njaboot googu ñu dénk sëriñu daara yi kon kuy parent d'élèves yaa ngi ci biir mais koo xam ne nii daaraa la lebal bor boo ko mënagul a fay bis boobu tamit sa bis la incha allahu taala muy la treize ñëpp tàkkusaan fekk leen ca jumaa ja mhm. ñu bokkandoo julli bu ñu sëlmalee nag mhm. quarante et un ya daa moom ku ñëwul sax sax sañ la ah. ak foo mën ci nekk ci àdduna bi bu bu dimanche jotee la treize bii nu ne bu ñu sëlmalee tàkkusaan fa nga toog defal quarante et un ya daa ne yàlla lii yéene naa ko jaamu yàlla maa ngi ñaan yàlla képp ku nam ma fitnaal daala daara yàlla nga ko teg mhm. luy tax luy tax dootul tala ci daara te numéro yi nga xam ne moom mooy affiché 124000 dog yi. ña nga ca te nag mi ngi def effet de mille dog yi ma waxaat mi ngi def effet yu rëy te buñ ñu bàyyiwul duñ ko bàyyi de 124000 dog yi dafay wéy ndox mii ñuy wax ak 700 milliards yi génnaat yéen effet ci man yi ma mën a tudd nag la bokk. jàpp leen ci mu dëgër. ndax nag ñun gaayu daara ñooy saytu daara duñ bàyyi daara muy suuf ci réew. Eh. tabat yeddaa yi ak bax baxaa yi ñooy jëb ci réew mi kënuy daara yi kënuy daara yi tabat yadaa yi ak bax-baxaay ñooy jëb ci réew mi te loolu noon le du ci mos a dañ incha allahu taala kon 41 yooyu lañ mën a wax public la ci des incha allahu taala ca bis ba danañ ko def ku ku ku daara ñor foo manti nekk nga bëgg a soutenir daara mm-hmm. le treize boo julee saan fa nga toog defal ñeen fukki tabat yadaa ak benn mm-hmm. ne yàlla yéene naa ko jaamu yàlla waaye képp ku nam ma teg daara luy tax daara yi jóge ci Sénégal ndaw ñi dootuñ jàngati alquran balaa ngaa supprimer daara yàlla na yàlla soppi la bu la yàlla mënta soppi mu supprimer la loolu moom mooy ñaan gi dañuy ñaan kuy xeex daara yàlla na yàlla soppi la ba nga jógee ci bu la yàlla mënta soppi nag balaa ngaa supprimer daara yàlla na yàlla supprimer la te loolu mooy ama daara yi moom duñ ko supprimer moom ku ko nar a supprimer danañ la supprimer ba ca àll ba daara yi wéy di fi am insha allahu taala kon la treize la unité treize bu ko kenn wuute di sant mbokk yëpp di leen gërëm di jaajëfalaat imam Babacar Sylla ci wuy seem ci aaxiru zaman du fi yoonam bu njëkk te ñaanuñu mu doon fi yoonam bu njëkk incha allah ndax ci biir kër gi la bokk ci émission bi tamit la bokk jërë ngeen jëf ci seetaan bi wasalaam xeex tànk bu gudd ak barke ooleekalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniya du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam